Heavy Bass.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 seen bilan di ko défendre ci xam-xam ñi koy contester di ko contester ci xam-xam ma bu njëkkoon idéologie moo doon dugal nit ci politique parti politique yi structuré bokkoon ci liy tabax penc mi école de parti daan am xeetu cadre yu ne daan fa waaye léegi nag jamono dox na dem ba arriviste yi dal di dugg ci politique ñi ñu tuddee ay activiste ñii ñu tuddee ay lanceur d'alerte ñépp cëppeelu ci géewu politique bonjour les dégâts ki ibbu woon bal bi mooy Souleymane Jules doon def ay live ci internet bi di yekk lu toll ni ketame autorité yi bawul sëriñ bawul kenn ñu dal di déplacer débat politique bi nekkoon ci débattre ci xam-xam dal koy wat wàccee wàccee ba yeggale ko ci sabante Macky bi mu egsee dal di koy def ministre bi amee nag ci la mbir mi dal di takkarnaase bu fàqe ca lang ba rek ne xeexal réew mi tàmbalee def live di saaga nit ñi di saaga haute autorité yi di saaga kilifa diine yi bawuñu artiste ñu borom daraja ma ne ñépp jot seen wàll ci saaga yi ci réew mi gars yi yemuñu foofu de boole ci def laay teg ay këyit di dugg ci vie privée nit ñi di attaquer seen dignité Sénégal yëpp di seetaan di tàccu parti pouvoir bi fi nekkoon ut ay saaga katam opposition bi fi nekkoon doon woote rupture ñoom it ut seeni saagakat sëriñu tariyaax yi daal di ci wàlli ne cëpp ci géew politique bi rapport dal daal di cay dugg journaliste yi na ci faax ma ne sek tër boo dem ku nekk ngay def laaj di saaga nday saaga nday yi mel ni tulleeg man li ci réew mi mu mujj mbalitu xol yi la yebbi ci clavier yi tuuri facebook tiktok mbaa instagram saagakat yi dem ba ñeen di recevoir biir palais di leen dalal ci média classique yi mujj leen def ay star golo gu jóg créé sa site di ci dalal ñu dëkkee xotti war may nit ñi Sénégal yépp di seetaan di tàccu xonta amul pouvoir amul opposition mooy li wolof njaay di wax de wala boog li Napoléon di wax qui sème le vent la tempête nee nañu ku ji Mollah Morgun ak Tunkara bu jebee ba jaxate bu mu bett kenn moo taxit ñi fi nekk tàmbale nañ leen songu dugg ci seen vie privée di xotti seen orma ba tax ñu teg ci loxo activiste di ba jaxate ak imam Cheikh Tidiane Ndao la wax de lii bu ñu ko seetaanee ci réew mi fa mu ñu jëmee baaxul dëgg du rombi nopp te nag réew mi faw ñu sangee ko xol yu seet Sénégal nag li ñu romb buñ ci jàngeewul dara fa ñu jëm baaxul ndax réew yi fa jaar yépp dem nañu ba yegg ci guerre civile moo tax attention attention ñu nekk ci internet bi di xuppaate ñoo ñit war nañoo wax ci seeni mbir ma ne war nañ ko toog waxtaanee de seet lii jëmale réew mi kanam Sénégal yépp taxaw ci bañ fee indiwaat kumba am nday ak kumba amul nday dal di jël ay mesures yu dëgër ci ñi nga xam ne ni dañoo nekk ci internet bi di saaga nit ñi ak xotti war may gor yi fu ñu mënti féete ñu traqué leen li wax mooy dëgg waaye réew moo xam ne la ñuy kaas tey moom lañ doon tàccu démb ay cohérence mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz